internet yi euh, ñi ngi taxaw ak ki nga xam ne moom moo di Fatou Waré ñu laal di koy fekk nag ci foire bi nga xam ne moom la Dabaye organisé alors Fatou maa ngi leen nuyu. maa ngi lay fay chéri ko maa ngi lay fay. lu waral tey teewaay bi ci foire bi. waaw man de xam nga Dabaye moom heure bu wootee da ngeen may gis ndax euh, jigéenu jàmbaar la te Fatou Waré ko xam-xam ko ci teel a xëy guddee wàcc bëgg liggéey. ah ànd ak jigéenu Sénégal yi xam nga léegi moom boo gisee euh, li nga xamante ne mooy leadership féminine bi dafa dox ci Sénégal te jigéen ñi dañu de bëgg di def ay entrepreneuriat dañu bëgg di liggéey dañu bëgg di investir ci seen dëkk rawatina nag ma am fi ay nit yoo xamante ne ñoom heure suñu génnee rek da ngeen di gis Fatou mhm. man si c'est important rek je sors. d'accord ak Dabay tey boo ñu ko doon wax. waa Dabay dafa nekk sama mag bien avant que muy sëy ak sama frère mhm. tey mu dem ba nekk jabaru Arma Arma ku xam sama diggante moom xam ne sama nit la kaw lalu yaayam laay tëdd falaay laay lekkee kolle waaw noonu laa mel ak Arma yaayam Arma yaayam moo gën a nekk sama xarit ak seen waa kër da bàyyi nekk sama nit boo xamante ne dañu xamante avant Arma Ndiaye boobu maa ngi ci groupe bu Ndeye di fecc mhm. rawatina nag Arma ñëw dooleeku ci mu nekk beneen relation mu nekk sama xarit nekk sama nit da bàyyi nekk nit ku serviable nekk nit ku baax ku humble ku nangoo liggéey mhm. alors Fatou Waré dañuy ñëw ci yow tuuti balaa ñëw rek tàggatoo parce que ci foire bi la ñu nekk quand même Fatou lan moo tax euh, gisatuñ la lu bëree bëree bëri ci réseaux sociaux yi quand même. Ah, mais dara. Hmm. déggoo man la man si c'est important rek je man si c'est important rek je boo ma gisee rek mooy farata am na <laughs> te xam nga euh, ak euh, sama yaay bi mu gaañoo ba léegi defuma activité danse bu baax a baax a baax a baax loolu moom moo tax mais maa ngi fii maa ngi ci Boubacar Diallo yaa ngi koy gis. maa ngi i rajo te bientôt di ngeen am ay émission yu bees tàq ci it ah des fois aussi ma dem voyager xam nga nekk ci samay master class ñëwaat taman sama lépp dama ko def dans le discret. Mm, mm, mais mais Fatou ñu bari wax nañu ne léegi fecc mi danga nga koo jël def ko classe dafa am clip yooyu fecc ak clip yooyu dul fecc. waa loolu nag moom c'est vrai ndax man clip bu ma répété wul du ma ko fecc man du ma fecc clip à l'improviste. Ah. waaw man soo ma woowee à l'improviste ñëpp nag laay feccal ba ci xale buy doog a jóg boo ma woowee ne ma kaay fecc lay feccal day tomb jour de la semaine yi damay dem liggéeyi euh, lu bari duma ko mën a boole te ku la feesloo moo la yàppaloo yéen àdduna war na ñoo xam ne Boubacar fu mu ma dugal loo sama loxo war naa ko faa dugal te la mu ma jox ma toog fa di ko ko géreel dafa maa jaral ma war a bàyyi lu bari ndax faawu nga bàyyi dara pour mën a def dara mm. te moom jar na ko il vaut la peine. mais seen relation quand même yéen ñaar naka la demee parce que gis nañu ni Boubacar jàll la aussi ku la ku la jege la te ku bëgg la seen relation. waaw suñu relation demeewul nenn lu dul diggante papa ak mu nekk nit ku ma sentir bëgg li may def moom man la bëgg te yàlla tax may remercier famille wam ak ay njabootam ak i soxnaam ndax ñoo ko ci bàyyi tey buñ ci waxoon leneen rek leneen am ci mais Boubacar kooku dafa ma bëgg te yàlla tax te loolu du tey. waaw da ñu am complicité bu gara comme papa ak doom man ak moom li ñuy dund si suuf moo ëpp sax li nit ñi di gis hmm. waaw parce que sama papa la sama frère la nit ku baax la. nit nit la koo xamante ne soo ko jegewul mënuloo ko xam xam nga nag àdduna dafa tollu si nit balaa ñu naan kii dafa baax rek ñu offrir la de luxe wala quelque chose comme ça or que tell ne pas nit dina la defal loo xam ne sa avenir mën na si jàkk moo ëpp importance yi nit ñi di xaar nañu wàññi ni ñu matérialiser dëkk bi torop torop torop ba bàyyi valeur yi nañu gën a valoriser doomu aadama yi ñu wutal suñu boppu valeur wut fulla ak fayda ak personnalité ba pare parce que nit da ngay defar sa avenir balaa ngay wax waxu tey affaire yi du luxe nécessité la nañ ko jàppee noonu te ñu régler suñu bopp defar suñu avenir li nga xam ne moo ñuy dimbali suba mais pas pour tey tey nii rek kii am na lii dama koy am kii def na lii dama koy def non non non non c'est pas ça une vie. la moo tax bokk émission yéen ñaar. ak nim la ci dugalee. waaw loolu moom moom nga koy laaj moom <laughs> loolu moom moom moo ko xam. Ah waaw moom moo ma bëgg. def émission sentir ma ci woo ma ci biir xorom ci cin ma ñëw di pelloog moom te bu dul manit it da koy def ndax lim ci xam xaw ma ko chaque jour mu rectifié ma waaye terewul man la bëgg rek teg ma si wetam. mais première bi ah, waaw parce que xam nga man nag moom dañu am benn compatibilité Boubacar su waxee dara rek dama koy dégg man su ma waxee dara moom moo ma gën a xam jamono li mu xam si jamono xam nga ku la mujj si néeg bu lëndam moo lay wan fooy toogee te lim ma siy dimbalee mooy pédagogie bi mu am moom dafa am pédagogie ci muy def technique bi mu siy am su ma waxee même lu ma warul wax day am dina ko defar ba mu rafet te ñiy déglu du ñu xam ne sax man lii waruma ko wax waaw. Mhm. waaw yu lay contacter pour nga ñëw. ah mais bien sûr. Ah yu du ñu jeex. nga ñëw barke Seydina Mouhamed. Mhm. du ñu jeex. lan moo tax dem. bu Boubacar moo tax. ku la fees loo moo la yàpp loo man pare naa si télé ak rajo dootuma dem tele kenn dootuma dem tele rajo kenn parce que euh, bu may judd loolu nekkul woon sama profession. mais am na ñu te tey rëccu nañ ko de. ah non loolu nag seet des choses différentes xanaa Boubacar jàpp ci sama loxo ne ma demal nga def lii bu boobaa à la rigueur parce que man moom xam na si dara nekkoon na si beneen télé woo nañ ma fa pour ay émission nangu ma ko woon def musuma bëgg def tele wala rajo musuma ko bëgg. gisoo euh, dans la mesure où kenn gisatuma ma fecc parce que mënoo di yow 7 heures du matin préparé pour xëy après guddi nga dem di fecc ba 5 heures du matin sinon dootoo liggéey. voilà euh, Fatou euh, ware kon nga baal ma ngir ñu tàggatoo quand sa situation dëkk bi tey noo ko noo ko jàngatee nga nekk doomu Sénégal nekk sénégalaise juddoo ci réew mi màggee fi situation dëkk bi. tiit rek tiit naa tiit naa tiit naa sama fit bi dem na man damaa tiit rek damaa tiit. ndax Sénégal fi mu ne daa mel ni nokk su dëxin kenn xàmmeetul lanay lam góor ñaa ngi dem ci gaal yi di dee jigéen ñi ku leen di takk góor ñaa ngi ci prison yi góor ñaa nga ca volet ba góor ñaa nga ca suus ba góor ñaa nga ca ivorogne ga góor ñaa nga ca leneen ak leneen ak leneen waa jigéen ñi ku leen di takk ñi dee ci manifestation bi ñi dee ci euh, géej gi ñi dee ñi dee ñi dee ñi dee góor ñii ñi ngi màndi di daanu ñii ña nga ca kaso ya ñii ña nga ca géej waa léegi jigéen ñi ku leen di takk nun dèjà ñu ngi ñuy takk par ñeent te jeexaguñu après ñuy dee di ci topp ñun ku ñuy ah. man tiit naa torop daal ah, vraiment heureusement ba jar naa waaye yéen ñi jaragul yàlla na leen yàlla jara ci jàmm du ngeen jar de góor ñi jeex nañ de góor ñee jeex dañoo dee ba jeex ah man de sama bos takkul kenn nee na takkul nee na man la bëgg kontaan naa ci yéen nag wax dëgg yàlla maa ngi leen di remercier ak seen euh, mbokku internet yi nga xamante ne ñoo leen di seetaan di leen féliciter bu baax parce que yéen tamit yéen a ngi jàppale nit ñi ak jeune entrepreneur yi fu lu nit ñi xewlee ngeen jël seen caméra ñëw jël ko ba mu rafet dugal ko ñëpp suivre ko yal leen yàlla defal jàmm boole leen si programme yu mag a mag a mag ci barke Cheikhul Khadim Fatou Waré tey ndax gëm nga ni ku mel ni Ousmane Sonko war nañ ko toppee vol de téléphone sama sama yoon new ci wax de